dañoo xëy ñëw fekk maire bi indi fi lu mat nervi bi eh, ñëw ne eh, dañuy toj sunuy place fekk lu jiitu loolu yabal na fi UG UG bi mu fi yabal bi mu ñëwee UG bi eh, nee na ma këyit laa leen indil ma ne ko léegi dama soxla arrêté tribunal bi bi wone ne da ngaa bëgg a toj sunuy place UG bi ne ma non loolu moom yoruma ko ma ne ko kon jërul wax ji sori parce que soo yorul arrêté tribunal bu mën toj sama place te marché bi ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye lii ñu ci arrêté nii moo ko arrêté lu moo ne euh, marché bi bu fi kenn laal dara te waxtaanuñoo commerçant yi ba déggoog ñoom suñu waxtaanul ak ñoom ba déggoog ñoom bu fi kenn laal dara noonu ko ministre bi waxee préfet noonu la ko dëggale parce que préfet wax na clairement ne moom du fi yebal benn alkaati euh, euh, ndax comme maire bi lu mu wax yi mu wax yëpp dara du ci dëgg defu ko. arrêté bi war a toj marché bi liñ fi waroon a toj 142 euh, cantines la nekkoon partie C euh, dem nañ ba ca bureau préfet bi ñu demee toog ak moom mu génnee euh, protection civile biñ ñu mujjee ñëw marché Gueule Tapée partie C boobu lañ wone muy 142 cantines ñu ne dal yi la ñuy daaneelaat dalewaat ko mais waxuñu sax dañuy raser. après nag ñoom bi ñu rasé partie C ba pare ab ñak lañ bëgg a ñëw ne moom la ñuy jox marché bi euh, ñu rasé partie A bi ba pare ñàkk bi génn ne moom marché bi yëpp la waxanteeg maire ñu ne ko nag euh, marché bi maire moomu ko te moom arrêté bi arrêté bi mu am deux cantines la maire euh, su su su bëggee jàppe marché bi kër gu ñuy miiras day juum. maanaam ñun sunu alal ñoo ko liggéey ñoo xam nañ ko liggéeyee kon bokk su dee dafa ñëw bëgguñoo boole ci arrêté boo xam ne si bokkuñu ci conditions yi ñu ko tegal da ciy mën a taxaw premier bi mooy si de recasement deuxième bi mooy dédommagement manque à gagner mais xam nga maire liy problème am tey jii nii euh, réunion yi def nañ ko maintes fois def nañ ko sous préfet Djibi Diallo def nañ ko préfet Alioune Badara def ko ak maire lu mat fukki yoon juróom maire sax bañ na ko ba moom suñuy réunion ak moom danaan ñu maire ba dañoo bari wax nañ dem Bourguiba sama sama bureau réunion yiñ ñu def ak moom yëpp lu ëpp fukki réunion foofa lañ ko defee mais soo jógee bureau euh, sa xel day dal ci lim la waxe ak ni muy waxeek yow dem ba génne lum ne kamil la daal di waat ba te soo fa jógee ba mam ñetti fan la muy wax dara du ca doon dëgg non loolu kay moo leer naa ñu xam nga premièrement amul arrêté bu toj marché bi euh, deuxièmement site de recasement amu ko troisièmement dédommagement manque à gagner mënu ko léegi ci alali jàmbur loolu euh, ku méttiwul rek da ko xoolul ci sa bopp mais képp ku ko xool ci sa alal tey ji ku ñëwoon ba koo jël ci condition yooyu dem jox ko ñàkk defe naa doo ko nangu. waaw loolu tamit dëgg la parce que tamit euh, liggéey bi un an la ñu waxoon te yaakaar naa boo demee foofu yow xool di nga gis sa bopp amul benn liggéey bi tegaguñ benn xeer malgré am na parti bu ñu daaneel mais am na parti bu bañ jóg aussi boo xam ne si ñoom dañoo jëndoon cantine yi xam nga jënd ko seen xaalisu bopp ñu assuré seen bopp am seen avocat am lépp moo tax ñoom mënuñu génn moo tax liggéey bi bougé wul demul un an la ñuy waxoon mais gis nga un an fekkaat fii léegi ñun mënuñoo assuré. ba xam liggéey bi un an lay def wala deux ans wala trois ans mais xam nga comme ni ma la koy waxee rek loolu moo fi sës dañuy toog nii liggéey parce que mënuñoo toog suñu kër yi di tëdd ka nelaw aussi parce que tamit aussi nekk ci abri provisoire sax di liggéey moo gën nga sa kër di nelaw. man depuis 86 ci marché bi donc euh, lépp lu fi nekk rek man xam naa ko euh, alhamdulilah marché bi maa ngi fi depuis bi mu nekkee barak lañu ñëwoon toj marché bi ñu ne dañ koy tabax. Eh, lu ñu waxoon boobu temps Mamadou Diop la bi ñu tojee marché bi depuis bari ñu gindi baraak tabax ko bi ñu yow si lu ñu waxoon def nañ ko ba joxal nañ suñu ay place alhamdulilah nekkat nañ fa encore mais bii projet ñëw bin ñee man bon marché bi comme que marché bi dafa bari ay eh, marché bi dafa bari ay divergence ay vérité bu dul jeex ay clan clan man dama choisir li ma doy li ma mooy doy mooy lan gars yi war na ñëw ne présenté ma ay kayit ñu woon ma man jàng naa xool naa kayit yi man li ma gis wax doy na ma je suis obligé vraiment à quitter. d' accord euh, Thiaw marché Gueule Tapée def na un an ci diiru bi ñu entamé chantier bi ba léegi def na un an bon ci wàllum kayit du ma ci dugg parce que nit ku nekk da ngay wax li nga maîtriser du dëgg mais ci ñaari camp yi ma mën a juger en tant que être humain. mooy que ni côté commerçant ak côté promoteur bon commerçant bi kaas dafa am fu mu ko teg je suis entièrement d'accord avec et promoteur bi tamit ñëw tamit bëgg ñëw pour liggéey liggéeyam avancer dem seeti leneen dafa investir alalam bon ci biir ñaar ñooñoon am na arbitre arbitre bi mooy la la maire moom moo war a mën a ñëw assume ay responsabilités am canaliser tous les deux. que ça soit muy commerçant bi normalement commerçant benn promoteur buy ñëw sur le terrain sax di xare amul fenn pour jot li nga xam ne nii moom la soxla tey moom dafa waroon ñëw fekk terrain nu tey nag kon ñi nga xam ne nii mooy le maire na assumer ay responsabilités kenn ku ci nekk mu teg la fi mu la war a teg commerçant bi mu wax ko lu mu mën a dégg ba tax coow du am parce que ñun dëgg Gueule Tapée lañ dëkk te jàmm rek lañ fi bëgg ñaanuñu yàlla reyante kenn nii commerçant ni keneen ak keneen dañuy liggéey nag te li ñuy liggéey aussi tam bëgg nañu Gueule Tapée dem ci kanam bëgg nañ ko ku nekk xam na ni bëgg nañu marché bu rafet lool lool lool ak leneen ak leneen ak leneen lu rafet parce que jamono moo tollu foofu mais tey je me disais que ni Ousmane en personne moo war a jël ay responsabilités am. waaw loolu daal problème bi yëpp loolu la parce que premier ministre de l' intérieur bi muy arrêté marché bi ne bu fa laal dara looloo ko andi. lu ñu waxante woon ba mu tënk ko ba mu dëgër defu ca dara léegi nag bi suñ avocat saisiré préfet euh, ministre de l' intérieur ci la ko ministre de l' intérieur wax lu leer nañ daal ne mayetuñ kenn kenn kenn euh, laal ca marché ba dara te dëggoowuñu ak ña fa ne beneen bi ci topp tamit euh, nervi yi procureur moom tamit intervi intervenir na ci parce que wax na lu leer nañ nee na marché du pour nervi nee na mayatul benn nervi nekk marché mais ñun loolu dérangé wuñu parce que ñun defe naa suñ fayee yëkkatee eh, ay 10 000 di fay ay nit te ñun ñu moom suñu alal di centaine de million ñoom defe naa euh, duñ ñu mën a gën a bëgg suñu alal loolu daal mooy en résumé mbir mi yëpp waaw. que ça soit ci côté commerçant bi que ça soit ci côté promoteur bi nga xam ne moo investir alalam. pendant un an mu toog di xaar di te de jour en jour muy financé xam nga te gañewul dara aussi tamit métti na ni mu mettee ci commerçant bi noonu la méttee ci promoteur bi aussi parce que tamit kooku tamit alalam la jàpp muy génne nii rek ba tey xamagul ci fu mu jëm du dëgg kon Ousmane Ndoye na jël ay responsabilités am faut pas que ñu mélanger tey commerçant bi ak promoteur bi c'était pas la peine ñuy histoire wala ñu leen di atte parce que promoteur bi commerçant bi lay liggéeyal promoteur bi commerçant bi lay liggéeyal bu paree daf fiy bàyyi commerçant bi moo koy utiliser dem yoonam. waaw parce que même ñi jot a génn sax ñu ci baree bari dañ leen a nax bañ génn ñenn ñi ñu forcer leen mais boobaa tamit ñoom ñi ngi sóor côté bii parce que côté bii li fi ëpp seeni place la ñu yore ñoo ko moom jënd ko ci xaalis bu bari. le premier magistrat na jël ay responsabilités am doomu Gueule Tapée ñaanul reyante yàlla ak ñi nga xam ne ni ñoom la dëkkaale woon démb ñaanul yàlla di reyante aussi tam ak promoteur bi ngir yàlla moom le premier magistrat Ousmane Ndoye na jël ay responsabilités moo xam nag nu mu ko mën a jëlee mais na jël ay responsabilités euh, parce que yi ñu waxante woon premier bi mooy site de recasement site de recasement bi euh, site de recasement bi maire bi dangay dégg mu naan la site de recasement mais site de recasement amagu ko ba tey ndax kaw canal bi la bëgg a def site de recasement te kaw canal bi moom ca début ba laa leen canal bi su beesoon tàq sax du yoon ñu fay teg ay kantin waxuma la nag muy canal boo xam ne si Ousmane Ndoye moom ci boppam moo ne woon canal bi dafa màggat ëpp na vint ans daal ne dootu mayati sax ñi fi doon lal noonu muy ñi fi doon lal fëgg jaay beeg yooyu daleen leen faa jëlee parce que dañ ne kanaal bi dat bi dafa jeex léegi kanaal bu mel noonu nga jël kantinu euh, fer teg fa jël courant def ca léegi jant bi di ci tàppe nawet bi di ñëw ak composition bi kanaal bi composé ci suuf yooyu yëpp nga boole ko bëgg faa dugal doomu aadama loolu lañ ne ko loolu mënta ne. ku dañuy dégg ni date bi canal bi dat bi expiré na bu yàgg. kon que à tout moment ça peut basculer wóorul quoi ñun xam nañ ñu wóorul mais aussi loo xamante ni lu mënta ñàkk faaw mu am ñun nekk nañ fi mais xam nañu li c'est pas sûr parce que canal bi nii bu jékki-jékki woon rek màbb ñun ñëpp xam nga on est foutu parce que ci ci danger lañ nekk nii nii ñun xam nañ ko mais tamit lii moo fi sës. xam nga yaa fi sës mooy taxaw falu moo tax ñu ñëw toog fii jàpp suñu jàmbur liggéey bañ coow ak histoire quoi. parce que mënoo am loola neex parce que état bi indi nañu fii man wan nañu kayitu leer moo tax ma ñëw fii ci kaw canal bi ba ma ñëwee ci kaw canal bi man aw ma fi man de laa personnellement aw ma fi benn problème aw ma benn maa ngi sant yàlla. bon canal bi di inspiré inspiré loolu dëgg la mais nit nag day gum yàlla nit nag soo demee ba di lab sax suñ la joxee paaka nga tey ci moo moo ñu indi fii comme amuñu benn choix te nu ñu xeex mu ñu xuloo nu ñuy def dañuy dem fi ñu jox waaye ah macha allah. ñun ñu fi toog sax ñun xam nañ ne ñun dañuy tëj suñu bopp parce que ku ne xam ne ni courant ak fer ak ndox àndul xam nga mais nag xam nga euh, mënul ñàkk quoi lii moo fi lii moo fi sës parce que proposition la bu ñu joxoon pour ñu nekk ci pour benn moment bu ndaw rek mais tey jii nii moment boobu sax yaakaar naa dépassé nañ ko. mais fer ak courant moom c'est normal waa mbedd mi susewu yi ñun parce que lu ñu susewu ñun ñoo gën a susewu ñun ñun ñu ciy toog di ciy yendu di ciy des fois sax ñu fanaan fi xam nga mais liggéey ak daan doole moo tax quoi mënuñu toog xam nga ñii ay soutien de famille la ñii ay père de famille lañ xam nga ñii ay jeunes lañ yu bëgg dara xam nga moo tax ñu toog liggéey dóoru waar jàpp suñu njàmbur quoi mais nag wóorul nag wóorul ku la wax wóor na rek da nax ñun moom xam nga la nañu yitteel ñun euh, dañoo gëm ne ci marché bi lañ toog di liggéey Euh, sunuy place fi dañ koo jëndoon maire mayuñu ko saraxuñu ko te it maire euh, yilifuñu maire euh, maire dañ ñu ko dénk rek maire be dana fa jóge keneen ñëw toog kon boog mënuñoo forcer ci lenn lenn lenn ci sunu alal condition yi ñu ko tegaloon nag moom lañ ko tegal ba tey waxuma sax mais su woon dara période yi ñu toll nii nga xam ne problème mu suuf dafa doon problème bu bu risqué normalement su doon moom euh, am na xel wala muy xalaat lu mu ciy def dana ko téye mais euh, dana ci téye bu baax mais nag ñun moom loo euh, loolu concerné wuñu ñun moom li ñu yiteel mooy suñ disposition yëpp jël nañ ko toog di ko xaar.